yëglekaay yi ci fajar gi ajjuma gi cuuy danañ ko commencé la nga xam ne mooy Keita Balde mi nga xam ni dañu ko taqal ak luq njuur fële ca tugal nga xam ni soxna Icardi mi nekk Paris Saint-Germain lanu jàpp ni moom moomee da daan dégganteeg moom téléphone loole danan ci dikk ci loo xam ni lu leer ñi la ginnaaw bu ngeen demee caaro yi ci Bas Muntaxa Bas Muntaxa defal leen xéewal ci bagage yëpp yu ngeen di jënd suñuy place ci Caaroy numéro téléphone baa ngoog 670 55 70 ñu defal defal leen ci xéewal ngeen woote ñu andil leen ko xeetu pièce détachée bu mën di doon ci mille réew bu ngeen wooyee ci suñu numéro numéro baa ngoogu danañ leen ko livré bu ngeen ñëwee ci suñu place yi Sawrine bu ngeen ñëwee danañ leen bëggal ba ngeen kontaan yëglekaay yi dañu koy dooree ak càppaculib Sénégal bi nga xam ni muy équipe nationale san bi nga xam ni moom rek lañu desee ci li nga xam ni mooy compétition yi nga xam ni war naa daja ak équipe bi le di Mauritanie tey ji vingt la match boobee di am di am ñu ko xel leneen lu ñu war a bàyyi xel ci yëglekaay bi muy Keita Balde mu ngeen ko gis mu sol moyo bu mu xong moyo bu xong boobee a la jàkkaarloo ki nga xam ni mooy doomu italien bi nga xam ni mooy Icardi nga xam ni soxnaam soosee daanaka téewul askumbaam ndax soxna soosee daanaka bari na ñoo xam ni doonal leen ci tuumaal wala tey jii Keita Balde lanu teg ci taabal ji nga xam ni ki nga xam ni mooy Icardi dafa jàpp ni soxna si wala boog dafa gis ni soxna si moo kii di Keita Balde dañu jël ay appel téléphone yoo xam ne ñoom ñaar ñoo ko doon jokkalante plusieurs fois maanaam lu bari ba jaaxal ko kon ak gone gi am na lu mu daan séq ak ki nga xam ne mooy doomu sénégalais bi nga xam ne daanaka fi mu toll nii soxla ay na ay ñaan ginnaaw bi mu jógee uh, ci problème mu dépase bi tey jii uh, tóllanti laa tal nañ ko beneen problème boo xam ne uh, daanaka mucc na ay bi yëpp waaye na ko sénégal gi yëpp ñaan ñaanal di xam ne pexem noonu mënta wees sénégal mi ngi ci wiiw sport mi war a daje ak tey jii sunu dëkkandoo yi nga xam ne mooy Mauritanie gi nga xam ne fi mu toll nii taxaw nañ temm Papa Thiaw mi ngi ci réew mi sport réew la mu ca bele ci ay kàddu jàpp na ni nekku nu ci ay ak ay revanche ak yooyu waaye li ñu mooy dem tëj ci équipe bi nga xam ne moo nekk Mauritanie daal di ñëw jàll ca beneen wala ba loole tamit lu mën a nekk la ndax gone yi nga xam ne yor na ko moom Papa Thiaw am nañ cawarte goo xam ne daanaka loolee waru leen a jaaxal ba tey record yëglekaay moo ñëw ci taabal ji indi ki nga xam ne tamit mooy li nga xam ne mooy Papa Thiaw ticket bi nga xam ne moom lañ koy laaj ticket boobee nekk na loo xam ne lu jëfewul la waaye ticket boobee nekk na loo xam ne lu mën a yomb ci moom Papa Thiaw kon daanaka Sénégal gi yëpp ñu ngi lay bàyyi jox la drapeau Sénégal nag fi mu toll nii di la xaar te lay ngoon vingt heures